Donc aujourd'hui, on a célébré le 8 mars, comme toutes les femmes d'ailleurs, toutes les femmes du monde. On a choisi ce jour parce que tout simplement le 8 mars c'était un jour de semaine. Et pourquoi le thème Le thème, euh, nous avons réfléchi ensemble en équipe et nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'on rentre vraiment dans, le, dans la vie des femmes. Et c'est pourquoi, on a, a choisi ce thème. Voilà. Donc engagement, femmes et engagement dans la vie de l'Église. Comme deuxième thème, nous avons choisi femmes dans sa vie conjugale. Voilà, donc euh, on peut dire qu'il y a un lien. Euh, étant femme, dans la vie conjugale, la femme catholique, parfois, on, nous avons constaté en tout cas qu'il y a beaucoup de divorces, surtout du côté des jeunes, par rapport au thème femmes euh, et vie conjugale. Il y a beaucoup de divorces. C'est pour cette raison qu'on a choisi ce thème. En tant que femme catholique, comment vivre sa foi et vivre sa vie conjugale. Voilà. C'est parfois difficile de cumuler les deux, d'être femme de foi et femme au foyer dans sa vie conjugale, c'est-à-dire entre hommes et femmes. Là, c'est ça, c'est à cause des divorces. C'est à cause des divorces, c'est pour aider les jeunes dames à vraiment bien s'engager dans leur foyer, à bien vivre leur vie de femme en tant que femme mariée. Voilà. Voilà, je dis tout simplement à ces jeunes dames, pas seulement les jeunes dames, il hein, y a même des, des, des, des, couples qui ont duré et qui, un jour ou l'autre, ça s'arrête d'un coup. Et je leur dirais qu'il faut vivre vraiment la foi, euh, vivre sa religion, même dans le couple. En ayant une vie de foi, nous pouvons vraiment tout faire pour euh, préserver notre couple. Et vraiment. Bon, nous, euh, ce que nous avons comme plaidoyer, euh, si c'est par rapport au gouvernement, c'est par rapport au gouvernement, c'est juste pour dire que nous, femmes catholiques, nous sommes là debout. Nous voulons qu'on nous implique dans les prises de décision. Nous voulons aussi qu'on nous implique dans les euh, dans le programme qui se passe euh, le, dans le pays. Voilà, nous voulons vraiment qu'on nous, qu'on nous intègre. Voilà. Femmes, hein, nous avons enregistré 900, 923 femmes ici aujourd'hui. Voilà, donc c'est un nombre très important. vraiment de, de Kermassar. De Voilà. Bon, pour le moment, euh, à, euh, à cause de, de Nous avons vraiment un problème parce que là, euh, tout est coupé. Il y a des femmes qui sont de l'autre côté, du côté sud. Il a, a d'autres qui sont du côté, nord, du côté sud. Donc euh, parfois c'est compliqué. Quand il des activités à faire, surtout sur le plan peut-être politique, il y en a qui sont de l'autre côté et d'autres sont... Euh... Ah, c'est de nous intégrer. C'est de nous aider vraiment à, à dans, dans, la vie des communes, de donner des places aux femmes catholiques. à toutes les femmes d'ailleurs, mais particulièrement nous, femmes catholiques, nous, nous revendiquons, nous revendiquons Voilà. Pas tellement parce que ça vient de commencer. On les attend. On les attend et on a, on a des promesses et on espère que ça va venir. Euh, nous, sommes en union de prière avec, avec les paroisse, Kirmassar. Kirmassar, Kirmassar, notre paroisse, 9 secteurs, 9 yi bu ci nekk am na COB léegi nag euh, ci loolu la ñuy liggéey ñu ci yënga yëngatu di ci sant yàlla aussi di ñaan ñëpp jàppale ñu ñëpp jàppale ñu ci ñaan ndax suñu mission bi ñu jël engagement bi ñu jël ndax ñu mën ñoo dooleel ñu gën a mën a jàppoo doon benn ñaari thèmes yooyu boo gisee ñu tànn ko femme ci biir église dañoo bëgg ne femme yëpp dañoo war a génn engagé wu ndax boo fekkente ne am nga ngëm ci sa ngëm googu nga mën a éduquer sa doom ci sa ngëm googu nga mën a wax sa doom diine bi mu dugg valeur diine bi mu am loolu moo tax ñu tànn surtout thème boobu comme ça bépp jigéen bu feeñ fii tey nga dégg conférence suñu curé abbé Pierre boo demee di nga mën a gën a mën a motiver sa njaboot di nga mën a jàppale sa njaboot te di nga mën a jàppale jigéen yi nga xam ne dañoo des ci kër yi engagé wuñu ci biir jàngu chrétien looloo si gis nañ ni bari na lool looloo waral beneen thème bi ñu joxe nii léegi mbirum jigéen ñi ci biir seen néegu sëy yi parce que ñun bu ñu xoolee xool suñu maam ya ni ñu daan dundee dañ daan dundee nañu muñ nañu muñ ne dañu naan boo muñee ci la ci la lépp di fekk par contre nag génération bi léegi ñu ngi leen di ñaax ñu muñ war nañu muñ mais muñ gi des deux côtés mu ngi war na doon ci côté góor war na doon ci côté jigéen parce que bu fekkente ni ku ci nekk yaa ngi wane sa mbagg ku ci nekk yaa ngi wane ni yaa ngi ak say diplôme kenn du la conditionné kenn du la commandé du dem te ci biir eh, néegu sey yooyu jeunesse bi léegi foog ñu am communication dialogue bi dox seen diggante waxante dëgg am fa des deux côtés nag parce que surtout góor yi bu fekkente ni Euh, bi ngay bi ngay doxaan ko jigéen ki par exemple je m'excuse du terme waxoo ko dëgg-dëgg lii ngay dundee nga ñëw ne ko tey jii man maa ngi nii maa ngi am par exemple cent mille francs de salaire xam naan cent mille damaa joxe exemple wala nga ne ko maa ngi am tant de million léegi nekk ndaw si foofu mu yaakaar ni li nga wax noonu moo ne ci moo moo ci yow mu toppee la ko bu ngeen demee ba marié ndaw si gis ni danga kaa fen laa y'a problème loolu benn day daal doon benn pas boo xam ne day indi découragement surtout bu fekkente ni fii bi de laa jàppee woon alal bu fekkee daa dugge ci duggee woon ci yow alal mu ñëw alal ba nga ko wonoon ca ndoxaan ba gisu ko fa beneen affaire la moo tax toujours may conseil jeunes yi ainsi jigéen ñi ak góor ñi ku ci nekk booy dugg ci dara waxal franchement li ne ci yow nit ki bu la ciy bëgg a bëgg la ci bu la ciy bañ ngeen teel faa tàggoo moo gën nga dund loo xam ne lii nekkul ci yow. ni ko suñu présidente Soso waxee léegi rek ñun jigéen ñi dañoo bëgg gouvernement bi tamit jàppale ñu lépp yenn buntu yoo xam ni ñu ngi koy fëgg pour jigéen yi ñu sóoraale ñu ci parce que ñun jël nañu engagement taxaw nañu pour vraiment gouvernement bi jàppale ñu ci lépp. waxuñu rek fi waxuñu financement mais daal ñu dooleel ñu ci biir société bi ndax ñu mën ci am kàddu. chiffre yooyu neuf cent jigéen neuf 29 jigéen yooyu mooy li ma leen waxoon rek moo nekk cinq secteurs ci paroisse Saint-François d'Assise cinq secteurs yooyu ku ci secteur bu ne am nga fa say COB ma joxe par exemple sama secteur Saint-Pierre secteur Saint-Pierre on a 9 COB suñu 9 COB yi nag femmes yi moom bare nañu macha allah léegi nag euh, président wax na léegi ci division bi ñu def commune sud commune nord commune sud commune nord bi. def nañu ko mais defuñu ko ci femmes yi parce que nous les femmes fi ñu taxawee woon démb femmes catholiques yi division bi ñu def ci secteurs yi touché wuñu dañoo gën a bokk jàppoo ni daan liggéeyee démb ak bërki ci loolu la ñu gën a taxaw tey